Anyways.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 dudd wax tubaab naan ko suur mi yee mbir mu ñaaw moomu nag nee ñu mu ngi xew booru 18 heures ci ab waay bu dëkk ci kër gi am fu mu demoon dellu si waat ci kër gi sa bi mu dellu see dugg ci biir néegam di noppalu naka noonu rek ci la déggee ay onk yu metti njortam dal di ñaaw ci noonu la génnee di xool fu onk yi di jógee bi mu yónnee noppam ci la xam ne onk yaa ngi jóge ci kaw terrasse bi sa dal daal di yegg ci terrasse bi waaye bi mu egsee li mu gis ëpp na doy waar de ndax samba boy boobu la fekk ci ab xale bu góor bu ndaw bu am fukki at ak ñett mu koy violé sup subhaanallah ma ni dung la leen fekkee ñoom ñaar waa ji nag bi mu gisee jëf ju ñaaw jooju alerte la def waa koñ bi mbooloo mu takku dal di génn gaay bi ñu ñëwee ba gis li xew ku ne di yuuxu ànd ak mer moo xam ni maara dee taali duma leen ko duma leen ko ma ne booy boobu xaw tuut ñu def ko ni kaña laa wax waaye ci biir mbooloo moomu nag am ñu ne déet nañ ko jébbal yoon ba ci lañ ko yóbboo ci commissariat bu ginnaaw raay ci kanamu enquêteurs yi nag waa ji nangu na ne yegg na ci kaw xale bu góor bu ndaw bi waay waay kii a bon waaye nag teg ci ne forcé wu ko ndax ñoom ñaar mbëggee dox seen diggante tuut tuut ki lu muy wax ni waaw man nag damay laaj man maa ngi Sénégal wala maa ngi feneen mais waa ji mën naa fena yow xale bu tuuti bu am fukki at ak ñett di way laa ko taxi du dégg du wax nga def ko njombelin ko def ba noppi di lakki daada waaye ma ne kii waratul génn prison laa la wax moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Cees doy na war ab directrice d'école daal ne moo fa xaru <laughs> këy ndaw su jigéen soosu dañu ko nommé directrice école ca ci loñ mu waroon a dem ca liggéeyu kaayam waaye nag loolu mujjul antu de ndax dañ ko fekk mu faatu ci condition yoo xam ne lëndëm na daal soxna si nag nee ñu dafa disparaître depuis 22 septembre bi weesu bi mu jógee ca Matam doon ñëw ca Ndakaaru moom daal la ñu gis am néewam ci ab àll bu nekk village bu jase fekk mu faatu ñaari tees na génn ci bu njëkk bi nee ñu femme bi bi muy ñëw nekk ci ab biis bopp bu metti moo ko fa jàppee naka noonu ci la wàccee biis bi ba li mujj xew-xew beneen tees bi wax ni naw si da xaru bras bi mu takkoon boppam ak buum nag moo fàcc daanu ëskëy ak lu ci mënti xew daal ndaw soosu ñàkk na bakkanam moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Jurbel romb na doy war ab xale bu jigéen bu ndaw ba am fukki at ak ñett moo fa faatu ñu suul ko ci condition yoo xam ni maara dee taali la wax patam patamee taxañ taxañee respecté wu ñu benn règle bi nga xam ni nit kuy denc néew moom la war a def ñu ni xale bu jigéen boobu faatu nag guddi lañu ko suul fekk booba mu ngi taw <laughs> moo taxit nijaay ji def lu ni mel nañ ko naka noonu sax ci la procureur ordonné ñu sulliwaat néew bi ngir def autopsie ba lu ni mel la ñu mujjee def waaye bu ñu sullee néew boobu autopsie bi ñu bëggoon mujjul am ndax état bi néew bi nekkee woon ba dañoo mujj jëlaat neew bi jox fa même ñu dencaat ko ma réew mi nag li fi am lu ne ngay dégg waaye nit bu deewee kay xam naa na procédure bu ñu war a jaar ba suul ko waaye nit dee nga jël ko ci guddi yóbbu suul fekk muy taw waay waay waay waay waay waay réew mi li fi am ëpp na mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz